dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw xibaar yi daañu woy ak yéen rek wax rek ci mbir uh, kii di Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang lu doy nag daal dinañ dellu siwaat ci procédure boobu ab xibaar boo xamante ne niki démb ba tey nag ñu ngi koy waxtaane jëm ci compte Ousmane Sonko boo xamante ne rek dañ ci saisir ab demande boo xamante ne Mame Mbaye Niang la jëm ministre du tourisme uh, jot na interpellé nag juróom-ñaari banque yoo xamante ni daal jot nañu metre ci uh, loxo lu toll ci ñeent fukki million ci suñu koppar ngir dommage à intérêt bi nga xamante ni Ousmane Sonko moom la waroon a fay euh, procès en diffamation bi nga xamante ne ñun dañ koy fàttali ñu jotu nañ ci évacuer ci niveau ñaari instance bu juridiction ci noonu tamit bu njëkk bi verdict bu njëkk bi jotoon nañ ko amal ci cour d'appel bu Ndakaaru ba tax sax ñu saisiroon deux parties Mame Mbaye Niang nag mu ngi doon espérer nag ay sanctions yu doy waar yoo xamante ne rek dañ koy yëkkati teg ko ci ndoddu Ousmane Sonko ci noonu tamit euh, ci ci ndoddu Ousmane Sonko ci euh, ginnaaw ba nga xamante ne daf ko tuumal ci lu amul niki altine bi juróom-ñetti fan nag ci weeru mai la woon cour d'appel bi jot na informé juge bi mu rendre euh, première instance mu déclaré euh, prévenu bi coupable ndax délit lu jëm ci diffamation ak yenn kàddu yëkkati jëmale ko ba taxoon sax ñu daan Ousmane Sonko juróom benn weer yoo xamante ne da ci génn ab sursis ak euh, ginnaaw ñaari infraction yooyee ba tax na nag ñu ordonné ko contrainte jëm ci wàllum yaram ak maximum ci revanche boobee sax ñu daal di si addu demande ak intérêt ba tax Mame Mbaye Niang ci ñeent fukki millions ci suñu koppar loole nag la juge bi daal di prononcé ci lu njëkk suite bi nag ci décision bi nga xamante ne nag instance ak ñaareel décision bi ci instance ñi di avocat yi nag jotoon nañ ci addu ci waxtaanee ci loole euh, ginnaaw 200 millions yi nga xamante ne jaa jotoon nañ ko procès suite décision bi nag ci ñaareelu instance bi avocat Ousmane Sonko bi lay jotoon nañu introduit ab pourvoi en cassation ngir rek verdict bi fas yéene nag jotoon ko kase ci cour suprême appel bi ñu amaloon ko euh, ñu daal di ko suspendre woon application jëm rek ci peine boo xamante ne dañ ko waroon a suspendre surprise bi nag général Mame dafa waroon tàmbali ay démarches jëm rek ngir entrer ci fonds yi nga xamante ni euh, kii di Ousmane sunko waroon na ko jox ci ndàmpaay loolee nag ay avocat Ousmane Sonko ci noonu information la boo xamante ni ñii di avocat Ousmane Sonko nag jotaguñ ko confirmé euh, ci jëm ci loolee ba démb ba tey jii nag ci ngoon si ñu bëri nag ci ñi ñi ñu ngi daal di interroger woo patole tax nag ñu affirmé waaye nag ba tey jii amul kenn koo xamante ni jot na xam le ne Mame ñaan dañ ko jébal 200 millions yi nga xamante ni Ousmane Sonko dañ ko waroon a jox compte nag dem ci client waaye tamit kenn ci proche collaborateur Ousmane Sonko moom nag mi ngi xamle rek ni euh, mi ngi jotoon a xamle rek ni nee na nag nekku na courant ci li nga xamante ni loolu ay wax rek waaye du leen loo xamante ne dëgg la ndax ay waxu njuuj la kon nag lii nga xamante ne ñu ngi koy jéem a laam-laame ni ki démb ba tey di ñëw Mame Mbaye Niang dafa dem si juróom-ñaari banque yoo xamante ne ñoom ñoo ko jébal 200 millions yi ko Ousmane jox ngir demande intérêt lu dëgg du yoon ndaxte dégguñu ko te te kenn ku jege Ousmane Sonko amul kenn ku ci prononcé daal di ko xam ab xibaar la boo xamante ne dañ ko bind rek ngir lam-laame waaye tamit di ci wut loo xamante ni dañ ko mën